الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوك جوليت يي راتينا بوك طالبي يي نونغي في تي باك بو تيد بي دي دارو سلام ngir fas yéene waajal bés bu mag boo xam ne mi ngi bàyyikoo ci ndigal li mi ngi bàyyikoo ci xalif général de Mouride Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na fi yàgg te wér jaar ci Serigne Mor Fati gawan khalifa maam Cheikh Anta ñew ci Serigne Jili Mbacke mi nga xamne modi khalifa Serigne mourou Mamoun ak rakam ju bax ji Serigne Abo Mbacke ak mbollem njabotuk Serigne mourou Mamoun Mbacke ndigal li ñew ci Serigne Cheikh Anta Mbacke khalifa Serigne mourou Roqe mi nga xamne mo yore kàddu njabootu Darou Salaam ndigal li nak modi di bes bu mag bo xamne ñing koy def samedi le premier le le 16 janvier ci daru salam muy wooteeb addiyey Daaru Salaam ji Serigne Modou Rokhaya Mbacké tàmbali woon 1983 ci xalaatam bu rafet ba mu toogee ba xam ne gisul kenn déggul fenn ndigal lu bàyyi ko ci genn kilifaam la wax ne nan sas sunu bopp dal di sasu ci 1983 ñu dajale addiye 3 millions 500 mille ñu di ko wéyal ba ren jii ba daaw di atum 2015 ñu yóbbu 18 millions ak lu tegal 118 millions ak lu tegal loolu nag moo tax waa Darou Salaam fas yéene waajaat feddiliwaat seen laxasaay wootewaat addi yooyu dinañ ci dégg ci kanam tuuti Serigne Cheikh Anta ñu boole ci nag màggalu yeeslu gi nga xam ne Serigne Salihu Mbakke moo joxoon ndigal Serigne Cheikh Anta Mbakke mii fu wutu sëñ Modou Rokhaya mu di ci ñaanal mu Serigne Modou Rokhaya mi xalaatan addi yooyu jooju muy lu am solo fédération matul xadim bi lekkale daayira yu aju ci kër Serigne Modou Rokhaya yëpp ñu tànn nag délégation boo xam ne ñoo ñu xamal programme mu bés bi ak ni ñu koy waajalee dañuy jox kàddu gi Serigne Cheikh sila mo wax ci turu fédération bi. alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu wax kon ci turu fédération daayira Xidmatul Xadim yi nga xam ne ñoo aju ci kër Serigne Modou Rokhaya ci daru Salaam. Ah, ñu woo bépp euh, daayira ak njiit la nga xam ne tey moo moo ji moo ne ca kanam mbooloo ma nga xam ne mbooloo ma yëpp kon lañu lañu lañu la ñu soññ ci ci woote bi daayira daaru salaam El Hadj Sëriñ Wadd aji Ndey Jóob Ngaay Mexe sëriñ sëriñ Moodu euh, Maamun Jaañ maam Cheikh Anta Jurbel sëriñ Fay Touba Madiana sëriñ sëriñ Safi Ndiaye Touba Okas El Hadj Ndiaye Grand Dakar Adama Touré Kaolack Abdou Aziz Babou Pire Gora Ndoye sëriñ Mor Sarr Jurbel Mbay Sàll sëriñ Xaadim Amar sëriñ Xaadim Amar Ngay Ngay Moodu Gay Saint-Louis Xataaba Seck Daaru Cissé Serigne Gueye Longor Moussa Ndiaye Daaru Marnaan Ousmane Ndiaye Palen Dedd Modou Gueye Gaawaan Serigne Bas Babu Ndindi El Hadj Ndiaga Sylla El Hadj Saliou Ndour Louga Souleymane Ndiaye daayira Soxna Ami Ndiaye Modou John Modou Diom Daaru Kibari Mamoun Tine Mbomboy Modou Faye Thiaroy Azur Soxna Rama Seck Tongol Ousmane Diouf Sam Touba Abdou Abdou Diakhoumpa euh, daayira Kadd Mor Ndiaye euh, Bari Ndondol Modou Tine euh, daayira Refaan ñu tudde ko Serigne Jibril Song Saliou Song Jalbe Jalbeer Samb Thiès Serigne Mamoun mbay Mamoun wala njawoot Serigne Mamoun Mbaye Mbour Serigne Modou Mamoun Gueye daayira Malika dak ca Dakar Talla Jaxate Sébi Xotaan Serigne Modou Ngom ci loolu itam ñuy woo daayira yi nga xam ne ñoo ne ñoo ne bitim réew bokk na mel na ni yi nekk Italie mel na ni yi nekk euh, Amérique yi nekk euh, Argentine ba France ba fépp ba ci Espagne fépp foo xam ne fédération bi am na fa euh, ñu ko fa teewal sëriñ bi mi ngi leen di woo ci bis bi te di leen soññ bis bi ni ngeen ko xamee le 16 janvier lay doon doon bisu addiyee yi waaye itam doon bisu fàtteku sëriñ Modou Rokhaya ci maglu yeslu lu googu nga xam ne ñëpp xam nañ ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.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 di ñaan Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar mu yàgg fi loolu te ànd ak wér di ñaanal mbooleem jëwriñu Serigne Touba yi fu ñu fi mën a nekk ci kër Serigne Touba na suñu borom defal ak wér lépp lu ñu yéenee liggéeyal Serigne Touba ñu matal ko ñoo ngi yëkkati sunu kàddu ci ndigalul Serigne Cheikh Anta Mbacke xalifab Serigne Modou Rokhaya di woo mbooleem kurandoo yi Serigne Modou Rokhaya fu ñu mën a nekk ci réew mi ak bitim réew di wax ne bis jublis na boo xam ne benn bis ëpp ko solo ci ñun kon fu ci turandoo mën a nekk ci réew mi nanga xam ne sa bisub bopp kat bis boo ran sonn kat bisub tey bii moo ci raw kon nañu ko waajal te fas yéene feddliwaat sunu laxasaay ba ndam lu ñu ci amoon daaw ak ya at ya ko jiitu ren jii ñu am ci ndam lu ko kawe. Ah, te ñu xam ne lépp luñ mën a def lu dul wuy si woote bi nekkuñ ci leneen lu ëpp njëriñ woote bi kon ñi ngi woo turandoo yëpp turandoo yu mag ak fu mag ak ndaw ñu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di woo bis bi nag le 16 la le 16 janvier. 2016 euh, fi ci daru salam kep ku koy deg na nga ci baye xel te jëm teew ci daru salam al te alquran ji ñu ñu ñu ngeen gën gor lu bu baax lepp lu way man ci jang alquran nga def ko ak jang khasida ndax serigne bi kat buñ doon lim ay turandom duñ fi juk waye nak kep ku deg wote bi rek da xamne serigne Modou Rokhaya la ñu tuddee. billahi mina rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه وخدامه الكرام الغرر ginnaaw بنو nu سنبرم تبارك وتعالى نو والبتكو di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci saxaabaam yu tedd nga xam ne fu nu àgg ci lislaam tey jii ñoom ñoo jëloon seen bakkan ak seen alal ak seenub dund jaayante ko ak sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ngir aare ko l'islam ba l'islam di dox ba aksi ci suñu loxo tay ji bis bi nuy woote nak day bis bu ndax ndaxte ñooñu àndoon ak yonenté bi jaayanté ak yéssal seenu jaayanté lañu andé won ak yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ba ñu jaayante ak yonente bi dañoo àndoon ak yonente bi ñuy tuur seen deret ñuy tuur deret ngir taxawal lislaam kon buñ doxee ci àdduna lislaam di dox lislaam di dox ba sëriñ Tuubaa feeñ jamono wax ne man dey dama bëgg a yeesalaat yoon wi nga xam ne mom la sahaba yi jaaroon dama fas yéene beesal yeesalaat ngirum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wi mu àndoon ak sahaba yi te mu jëfe ko waaye ci anam geneen ndax dafa jihaat ak noonu yàlla te deret tuuru ngànnaay jógut ngànnaay jógut ba mu jekku leen walbatiku dellu siwaat fii ci Sénégal ma nga ci wax naan man zanna anni li gayrillahi murtaxilu aw li siwal Mustafa al Muxtaari fi safari ku defe ne tukki bi may tukki dama koy tukki ngir kuddul Moustapha sallallahu alayhi sama tukki bi am nga ci njuumte salla alayhi bi taslimin bi shaatihi man kawnuhu li axnani ani nafari yàlla na suñu borom dolli ay xiwalam boole ko ak saxaabam ya ñooñee nga xam ne ñoo àndoon ak yonente ba sallallahu alayhi تنجوني لني يرون أغناني عن النفري دويلو ناغو تواليس مي عندك بولو نيور انجرناي دي خيخ وايلو لنك كمونخ نيورو بن غناي حتى يباريزني بالصيف ولا سفهي وبالمدافه ذا هقل ولا غدر بموي لو توغ من في اي جاس نيرو ندف ولا مو يلو توك من أي كن يقول إنيان وتقدر البروم أغورل يلا ورنا فالله يغضله والخلق تعضله والعار يقتله بالحسن والفتح من الكوكيري سنبرم رنك الجتل تدنى نيكو يد تدنى أم جتل gàcce dana ko rey ci toroxte ak fu mu jaar tase ki ndax ndax man wallaahu yansuru ni wal xalbu tatbau ni wal xalqu tatbau ni fil barri wal baxri za nafxin bila darari dafa mel ni bayit wi moo andi suñ jataay bii man wallahu yansuru nii suñu borom dana ma dimbale wal xalqu tatbaxu nii te nit ñi danañu ma topp fil barri ci géej gi ci jéeri ji wal baxri ak géej gi te kenn ku nekk sans nafin borom njëriñ ngay doon bila dara ren te doo ànd ak lor di jëm si ci man kon nag sëriñ bi jaayante kookee mu jaayante woon mu indi woon ñëpp nangu ko jox addiya addiya ji woyof ci moom addiya ji nag bu ñu seetee ne ñi àndoon ak yonent bi dañoo jaayante woon eh, noonu itam 1800 1983 suñ ma doon seet loo xam ne lii eh, moo jaayante sore mu wax ne fépp fu nu toogeeti doomi Sëñ Tuubaa joxunu ndigal nan jaayante nun sas suñ bopp jaayante suñ bakkan dajale addiya jox ko ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa mu def ko ci jumaay Sëriñ tubaa ji ak ci liggéeyub Sëriñ Tuubaa bii ku ne xam na ne ci lu dul baatin li nga xam ne moo fi toogal Serigne Touba li ko war bari na lool taalibe yi rek ñoo ko war a jox kon nag Daaru Salaam moom ne fas nañ yéene kenn duñu jiitu ci loolee ah li nga xam ne mooy Serigne Touba la ko may loolee mooy dafa waxoon boromam ni ko aslamtu kulli lahu abadan aslamtu كل له عقد له أبدا بما اختار في مكفي وفي سفري جاينتنا جبلنا سوى لب سنو تبارك وتعالى فاستيني جاو في مي صح كريومي أقو متوكي له شكوريا في دار السلام ذكر حكيم قد نفكر ما نكون سنت فيك دار سلام جي أكي توبا جي بالكوك ديكوس ديكوس سنتنا كي القرآن متدمي نخمن كي القرآن درجة القرآن لسون برم دق سماي لور سألته عودي برضا لهما id laa yulaa id laa yulaaqiini shay'un min alxarari maa ngi koy ñaan moom suñ borom mu delloo ma daaru salaam ak Touba te boole maa ngërëm ba dootuma tase ak kenn koo xam ne ab warkat la te kooku mooy seytaane kii mooy Sëriñ Touba la mu jaayante woon ak suñ borom mom la ñu fas yéene nuyu Muntaxa bu melni am bu melni am na ku daan wérante yeslu def na magal gu ren gi sëñ Muntaxa wax la ci wax ju leer mm-hmm. Muntaxa ren na kep ko di taalibe war nga wax fu ne nga yeesalaat sa pas pass war nga wax fu ne nga sa gayante ak sa sëñ Muntaxa ku ne xam na ne du waxante nag ba nuy woote di tudde bis bi yeesu di xam ne sëriñ Modou Rokhaya dafa mel ni la mu doon junj mooy yeeslu moom lay woote waat di woote ci yeeslu gi nag ànd ci ak mbooleem képp koo xam ne ndam li sëriñ Touba am ci Touba bi génn ko ba sonn mu dellu siwaat senegaal ak ndam ndam loole neex na képp ko xam ne bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu gàddaayee te madinatu munawwara bi mu del siwaate di toj màkka di toj xëram yi bis boobee neex na la ndam loole saf na la maa ngi lay woo nga ñëw nu ànd yeesalaat suñu pas-pas fii ci Daaru bu nu yeesalee suñu pas ba noppi nu dajale lañ koy firndeele dem jox ko Serigne Touba Cheikh Sidil Mokhtar yàlla na fi yàgg te wér presque yëpp sant naa leen woote bi fu mu àgg yéen ko fa àggale na ngeen ma ko àggaleel fu mu war a àgg fu sama kàdd àggul rek na fa àgg ndax liggéey bi woowuma ci murid yi rek woowuma ci jullit yi rek waaye képp koo xam ne kii bëgg nga payug ëllëg ak njëriñul ëllëg te xam ne ëllëg suñ borom mi dul dara moom doo nga fa am pay te lépp loo lebal suñ borom fii bu la ko fayee ëllëg da nga kersa kon nag ñaari biir rek moom la doomu aadama am liggéey bi àdduna bépp li muy yaatu yaatu biru bopum bi lum ci defut defu ko ci bir bamelam bi perte na ko kon nan jël li yor def ko ci serigne touba mu degal na ci loxo rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu nangul na mu dugal nu aljana kon nu and ak noddu gi fàttaliku serigne mam Cheikh anda mom serigne as mi barki dem te bis bi mu daan ko bokk ak ñun ñu bokk teewlu kenn ku nekk def fatiha ak fukki lixlaas ak benn ñu ñaanal ko maam kon bokk yi man ñëpp laa bokkal bokkuma ak maam maharam rek yem ci waaye la Sëñ Tuubaa waxoon rek ne sunu borom yàlla na nga jéggal képp ko xam daf ma yaakaar wala mu ne ko sax wala sax koo xam danoo bokk aadama walla sax koo xam ne dana bokk ban bu nu bind na nga ko jéggal dugal ko àjjana kon nag man ñooñu laa bokkal kon suñu borom tabaraka wa taala dafa wax ne moom wërsëg moo koy maye te ku mu may wërsëg dana am num la ko joxe fulal la ko te mbirum sëriñ tubaa dara tànk lépp tànk kanam laam na ngeen def ba nanu defoon ba sëriñ Modou Rokhaya tàmbali liggéey bi ba ko sëriñ Modou Mamoune tàmbalee te yóbbu lam yóbbu ak almet te nu toog ab diir yor ay liggéey liggéeyloo liggéey kër yi Sëriñ Tuubaa lan nekkoon ba ab diir ñëw boo xam ne bii kenn liggéey loowunu kër suñ Modou Rokhaya na kon nag nan sasu yoon wu njëkk wa mu yóbbu ñetti million bi mu tàggoog mu yóbbu juróom-ñetti fukki million ak juróom-ñett kon daaw nun ñu yóbbu téeméeri million ak fukki million ak juróom-ñett ak juróom fukki junni te mën na ren lu ko ëpp mën na ren lu ko ëpp ku ko fekke ku ko fekke dañ la wër na mën nga ko kon nag nañ ñaan fekke ko te tal ko te lépp luñ ci fas sëriñ tubaa delloosi ko ci magi Daaru Salaam bi tàmbale ko ci maam Cheikh ba ci kii ci mujj ndax ñoo jaayanteeg sëriñ Tuubaa te jaayante gi wér ci ñoom ba tax lépp jàppandi ci ñoom kon maa ngi dellu si di woo sama bokk yépp xëj amul xëj ak seen di sant presse bi yépp di sant daayira yi di sant seex si kenn ku ci nekk rek wóor na ma ne boo sañoon addi ji ñu joxe fii ji ñuy joxe fii yaa koy joxal sa bopp yow dong loolu Serigne Touba Cheikh Sidi Moukhtar xam na ko képp koo xam ne kii noo Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba xam nga ko yàlla na yomb ci yéen lool te mu ko bu wér te mu koy waat ko nëgën te ñëpp yokk ba yëg ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah